maluhu ma tunfiq yaminu mooy ko xam ne dafa génne sarax di ko joxe càmmoñam sax yëgul li joram joxe wax sama ak jabaram di ko yëg yegul yëgul linda joram joxe asama ak xaritam di ko yëg càmmoñam yegul linda ndeyjooram joxe asama ak ay nitam di ko yek. Lamui muy def na te ut moo mu di ko def ngir yalla waaye ñu ne la kaay ñaara ngi الله سبحانه وتعالى نينا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا ولا وعلانية ne falahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yahzanun am na ñoo xam ne dañuy dépenser seen alal mu nëbbu ak mu feeñ léeg-léeg dépenser mu feeñ dagan na du bokk ci ngistal lan moo tax bokk ci ngis ngistal propagande la pour ñeneen ñu joxe ndax léeg-léeg nga joxe ci mbooloo aw nit gis ko mu xiir leen ci ñu joxe motax yàlla neena sirran wa alaniya yow mi deugar fit nak bu tok gis ki joxe nga deko ko non ki de gis salan ki dafa bëgg ñu xol ko non non xam nga yow lu la jàpp soxor mo la jàpp motax ngay juger lo yorul xol kenn duko ko àtte xamoo lu tax mu def baye ko yàlla baye amaan na yaa jàpp ne day ngistal fekk mom dépassé na sax lolu waye kuy def dal na fekk yàlla motax nga def ñi joxe te yàlla tax yàlla na yàlla defal leen société yu mag yi yu ndaw yi ñiy joxe te yàlla tax yàlla yàlla jox leen yàlla yàlla may leen wallahi am na ñoo xam ne ci réew mi ay jàmbaar yi joxekat lañu ñu xam leen waaye am na ñoo xam ne ñoo leen gën a jàmbaar te kenn xamu leen loolu du jeex du jeex moo tax comme yàlla gën a xam ñiy joxe te jëmmam tax kon jarul tudd tur nañu bàyyi yàlla xam na ñan la ndax léeg-léeg nga wax nga tudd tur nga foog ni borom day def te yàlla tax ne woo ci xolam waaye yow looy àtte àtteel ko loolu rek waaye képp kuy def te yàlla tax yàlla xam na insha allah rabbi mbokk yi juróom-ñaar ñooñu mooy ñu yonent bi njëkk a wax danaa la ca dollil ñeneen ba mu nekk fukk ak ñett juróom-ñetteel bi bokk na ci man andara mu'siran ku dimbale ku ñàkk muñal ko gis nga waa ji dafa néew doole ñàkk yoreel la bor nga mun koo fayiku mu ñëw ne la dimbale ma ba jamono soppiku nga dimbale ko saa boo ko gisee xam ni mun nga koo fayiku nga dimbale ko moo tax saxaaba yi am na ñoo xam ne dañ doon leble te duñu fayiku te duñu la sonal xam nga lu tax mooy tuyaabay leble moo ëpp doole tuyaaba saraxe nit ki nga lebal bis bu nekk dañu lay defal tuyaaba bu tolloog li nga ko lebal waye sarax bi jamono bi ngi ko joxe tuya bobu bu la yem jeex na moo dañuy préférer lebal la sa bo ñe bëgg fay ñu non non demal ba nga amaat demal ba nga amaat parce que xamna ne limu ci am ci ba xamul nu mu toll waye jamono ji cey bo yoreeloon nit ben 10000 francs bo defut ndànk ñu àtte leen ca jàkka ja ñu àtte leen ca koñ ba dana la wër wa kërëm yekko ay jabaram yekko ay domam yekko ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith abu hurayra ne man anzara musiran aw wadaa lah adallahu llah yawma la dhilla illa dhillu yàlla neena ku muñul ku néew doole wala nga fayal bor ku néew doole yàlla kepparal la allahu akbar kepparal